bonsoir à tous et bienvenue l'invité de cette TV soir waxtu wi jot na sunu gan yegsi na ñu am plaisir di recevoir euh, tey ci plateau bi euh, Chérif euh, Diop Chérif Diop moom mooy président fondateur du parti wala mouvement Thiofel dinañu ko leeral ci biir émission bi Chérif ñu ngi lay nuyu di dal ci plateau bi. jërëjëf ci nuyoo bi ñu ngi la koy delloo. di leen wax jaa ngeen jëf ci dalal bi ngeen ñu dalal ci kër gi. jërëjëf di la sant bu baax a baax cofeel bu ñu ko déggee xam nañ ne baat bu am yërmande la mais dans le cadre politique euh, lan lay signifier aussi euh, ni ngeen ci demee c'est dans le cadre d'un parti ou d'un mouvement politique. Euh, cofeel yërmande googu lañ soxla tey ci réew mi wante yërmande gu ànd ak dëgg gu ànd ak jub cofeel tey parti politique la ñoo ngi nekk en attente par contre de notre récépissé wante association la woon boo xam ne dimbali woon nit ñi ñoo ko waraloon. Mm-hmm. ñu dem ba ci biir mu doon mouvement. tey jii mat na at ak juróom-benn weer ñu demandé suñu récépissé on a fait li nga xam ne moom la ñu tubaab di wax feer la dépôt def nañ ko en temps en eur topp nañ étape yëpp. ba jamono ji ñu xaar suñu signature ci ministère de l'intérieur moo ci des. Mhm. bu ñu taxawee ci loolu forme bi euh, par rapport ak tour bi ak euh, li ngeen di sàkku muy récépissé bi lan lañu leen jox comme euh, motif bu tax jotagu leen ci c'est en cours yëf yi ñoo yéex wala fa am lu leen di reproché ci tour bi ngeen jox parti politique bi. bu fekkoon dafa am lu ñu reproché ba tey wëlbati nañ ko defaraat ko ba jox ko wante amul dara lu ñu reproché li ñu am jamono ji mooy le silence silence autorité yi moom la am. Mhm. loolu c'est c'est c'est déplorable ah c'est pas à l'image de tout ce pays parce que aussi boo seetloo Sénégal les lenteurs administratives dañ koy seetlu ci lu nekk les gens qui doivent travailler souvent ils font pas le boulot attente bu toll noonu aussi est-ce que est-ce que jaadu na. waaw xam nga bu fekkee lu toll ne récépissé parti politique. Mhm. te ki wut kayitu juddu sax mu ci am coono. donc day wane ne cofeel ci askan bi la bokk mhm. coono bi ñuy dund ñun ñëpp ñoo ko bokk di dund la lenteur administrative est une réalité dans ce pays man nag je préfère ñu wax ci ay solution mhm. tey cofeel bu ko yàlla dénkoon bopp réew mi lan la def pour jéem a wàññi lenteur administrative boobu. xam naa ne bu fekkee am nañ possibilité waxtaan ci dinañ ci ñëw. dinañ ci ñëw mais lenteur yi déjà euh, quest à la base ci sa gis-gis parce que aussi pour ngeen ay solution foog nga diagnostiquer le mal euh, qu'est-ce qu'il a on n'a les hommes qu'il faut à la place qu'il faut wala li naan sénégalais c'est pas un travailleur théorie lañ gën a bëri le yooyu yëpp xëy na aussi war ngeen ko mën a soppi mais pour ngeen dem ci il faut ñu xam lan la réellement. Euh, ndax sénégalais yi duñu ay liggéeykat man bu ma gisee ñi ñuy tuddee les soldats de la rue maanaam ñi nekk ci secteur informel bi yëpp damay jàpp que ne sénégalais ay liggéeykat dëgg lañ. Mhm. yàlla def nañu jénn bitim réew aussi parce que nekk nañ immigré xam naa ne sénégalais ay liggéeykat lañu ndax tey nag ñi ñu dénk réew mi ñi nekk ci bureau yi ñoo ngi liggéey loolu ñun ñëpp am nañ ci appréciation. Mhm. te ñu ci ëpp dañuy naan liggéey am na ci mbedd mi. am na ci fi nga xam ne naaj baa ngi tàng wante fi bureau yi seddee liggéey amu fa. Mhm. et loolu c'est un xam ne sénégalaises yëpp ak sénégalais yi def ko. lan lañ ci lan moo ko waral parce que loolu mooy wax bu njëkk bi. Mhm. xam nga léegi léegi reconnaissance dafa xaw a jafe suñu njiit yi ñi nga xam ne tey ñooy doxal administration bi amuñu reconnaissance xamuñu ne peuple bi leen teg foofu pour ñu liggéeyal peuple bi. Mhm. et souvent ça c'est une question de personne d'abord d'homme avec la lettre H au majuscule. damay faral di wax ma ne la problème du système am na mais ñi système bi moo gën a doon problème. Mhm. et ñi gérer système bi c'est des mooy ay mag ak ay ndaw ñu deful seen wàll ñu deful seen liggéey ñoo xam ne ñoo prêté woon serment te ñoo ko wàcc. Mm-hmm. ñooñu ñoo gën a nekk problème bi. li ñu naan le poisson pourri de la tête par la tête fa lay tàmbalee ndax da nga jàpp ne yëf tey jii nii à la base les sénégalais. c'est des travailleurs mm-hmm. ñoo am jom lañ yaa ngi koy wax ci secteur informel bi mm-hmm. mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw les décideurs fala fala euh, fa ñu ko waxee fi naan euh, yëf yi fala fala fala sooxee euh, xam nga li ñuy tuddee réew c'est un ensemble ñi nekk ci kaw souvent mën nañoo nekk image ñi nekk ci suuf. Mhm. ñi nekk ci suuf mën nañoo nekk image aussi ñi nekk ci kaw parce que réew ensemble la c'est juste que li ñuy tuddee l'enclos du sous-développement dafa bëri ay gànc yoo xam ne wala dafa bëri ay ponk yoo xam ne day tënk développement réew te administratif tey ni ñu waxee la lenteur administrative. Mhm. dafa am ay gaañ-gaañ yu bëri lu ko waral manque de moyens am na. manque de personnes ressource am na manque de qualification am na mais aussi manque de moralité ci li ñu la jox am na mhm. et souvent Sénégal tey ci ñeenti ponk yooyu ma wax boo jëlee manque de moralité ci cër bi ñu la jox daf cee ëpp mhm. chauffeur bi dawal otoom ci tali bi incivilité bi muy dund ah. journaliste bi nekk ci télé bi wala ci rajo bi ba ci homme politique ba ci ministre ba ci nangam ba ci nangam ba ci nangam ñun ñëpp ku nekk am nga ci sa part de responsabilité. Mhm. maintenant solution yi mooy li Thiofel di wax il faut une prise de conscience dans ce pays d'abord prise de conscience xam ne bu fekkee njiit nga da fay nekk pour servir li ñuy tuddee notre fameux SS. Mhm. servir le Sénégal. mooy bu njëkk bi. Mhm. cette prise de conscience elle doit être une obligation aujourd'hui dans ce pays. mais du doon loo xam ne lu spontané lay doon parce que li fi nekk nii mënuñ ci am yaakaar que jour au lendemain dana am prise de conscience boobu. donc c'est un travail boo xam ne dañ ci war a liggéey en espérant que mu changer wala mu évoluer ultérieurement. suñu programme cofeel boo ñu ko mayee moo ngi tudd or. Mhm. or comme le métal précieux. effectivement O O li baax ci réew mi dafa jot ñu organiser ko li nga xam ne baaxul ci réew mi wala arrangé wul sénégalais yi parce que mën naa baax te arrangé wul yi. Mhm. ñu réformer ko. les réformes aussi il y en a eu beaucoup ah plusieurs le mais malheureusement après duñ ci gis dara. au fait ñun suñuy réforme réforme bibliothécaire yi ñuy wax. Mhm. ak réforme humanitaire yi du benn. réforme yi ñu bëgg dañoo bëgg askan bi bañ ko liir. bañ ko gis dañoo bëgg ñu yëg ko ñu dund ko. investir ci nit ki. loolu moo indi baatu cofeel ñu delluwaat ci question première bi. Mhm. cofeel se veut de ramener l'être humain au cœur de la vie citoyenne et politique. naka ngeen ciy demee. niñ ciy demee dafa yomb dañuy delloowaat sénégalais yi réew mi bu ñu gisee écart bi am diggante ñi jiite réew mi ak réew mi day mel ne li ñuy tuddee le Sénégal. ci ñaari nit ñu dëkk Sénégal ñu bokkul ñoo fi nekk. dafa am lu loo wax dañuy delloowaat euh, réew mi sénégalais yi un pays indépendant depuis 1960 qu'est-ce que ça veut dire tey jii nii que ne on est indépendant que de nom wala ñi wutu colon yi ils ne valent pas mieux que. Euh, sëñ Ndiaye loolu moom xam naa ne bu ko waxee ci seen télé bi <laughs> coow li dina bëri xam nga la colonisation dafa nekkoon d'abord militaire. Mm -hmm. aujourd'hui tout le monde est conscient que la colonisation elle est économique. Mmh. mais aussi la colonisation peut être psychologique mm-hmm. xam nga après la première et la deuxième guerre mondiale dafa am li tubaab di tuddee les masques dañoo daanu ci suuf maanaam l'être ou bien les Africains ont un peu démasqué ce mythe blanc mm-hmm. ils ont pris conscience qu'ils pouvaient mourir comme tout le monde saigner comme tout le monde avoir peur comme tout le monde donc d'accord nañ ci ñu dem ba ci biir donc cette colonisation armée Cette domination armée, elle s'est transformée par ce qu'on la nouvelle guerre intellectuelle, muy intérieure et monétaire. Mm -hmm. Aujourd'hui, l'Afrique souffre de cette dépendance économique et psychologique. loolu ñun ñëpp xam nañ ko. Mm-hmm. ñun ñi am chance su jénn dem ci yeneen réew yi dëkk fa liggéeyandoo ñoom jàngandoo ñoom. xam nañu li ñuy wax. mais le problème de la monnaie revient très souvent ñëpp a ngi ciy wax. Mhm. ñu bëri jàpp ne pour euh, Afrique euh, francophone bi wala boog Afrique bi nga xam ne ñoo déggoo ci euh, li ñuy liggéeyee jamono ji muy CFA daf ñuy bloqué bu baax a baax. ci lu bëree bëri. Mhm. ñu ngi koy wax depuis des années malheureusement rien n'a changé est-ce que ci loolu am na lu ñu ci mën a indi concrètement loo xam ne mën na soppi tey jii nii sunu sunu sunu sunu dund. sur deux volets le premier volet il est local mais le deuxième volet il est Sénégal, je vous donne un exemple. Le Sénégal, 17 millions d'habitants là. Si on a une monnaie unique, pour nos 17 millions d'habitants, pour nous poser aussi ce qu'on appelle les bourses, day xaw a jafe. Ça loolu moo indi sa qu'on appelle les unions yi ngay dégg. Mm-hmm. union monétaire yi ngay dégg. les États-Unis d'Amérique c'est 52 États. Mm-hmm. boo demee lu mel ne Chine. même bu ñu nekkulee état yu bëri mais leur population. Ouais. leur démographie leur permet tey ñu atteindre benn niveau boo xam ne presque toll nañ la Afrique. Mmh. Sénégal nekk ci biir continent boo xam ne c' est le continent africain un continent morcelé par la colonisation. bëri ay réew yu ndaw. Mhm. réew yu ndaw yooyu mënuñoo imposer wu ci bourse yi avec leur monnaie unique. individuellement mhm. donc mmh. il va falloir réew yooyu noonu ñu dajale am nañ ci programme bu tudd ensemble. Mmh. mais ensemble boobu noonu sur ce qu'on appelle le li ci nekk tey dafa am ñaari volet aussi ma explique ko pour ñi jëm ñu comprendre c'est bu njëkk bi mooy que ne CFA bi bu ñu gisee que ne ñoom ñi nga xam ne ñun africains yi ñoo koy utiliser wante de li ñuy tuddee suñu banque bi nga xam ne moo garantir CFA bi moo ngi nekk ci réewu tubaab bi. Mm-hmm. même le noo fait appel à une domination française. rien n'a changé malheureusement. donc loolu noonu c'est une question boo xam ne tey. des jeunes africains comme man ñoo ngi ciy commencé di poser les questions. le problème est-ce que nekkul également ci dirigeants yi nga xam ne dañoo jege trop. Euh, la France parce que te jii nii boo seetloo cette question de monnaie bu ñu koy wax souvent on parle de la Côte d'Ivoire ak ku ci mel Assane mhm. on parle du Sénégal ak ku mel ne ñoom ñëpp nee nañu entre guillemets dañoo jege réewum France donc c'est pas eux qui vont défendre nos intérêts comme il se doit. France Sénégal dañoo am une histoire très particulière une coopération bilatérale très particulière loolu faaw ñëpp ñu xam ko. Mhm. président Sénégal jege président France warul doon problème pour Sénégal. mais de là à oublier nos intérêts aussi. mais ça par contre ñi jàng science politique. Mhm. phrase bi ñu leen di njëkk a jàngal mooy les pays n'ont pas d'amis ils ont des intérêts. Mhm. si les dirigeants africains ne savent pas défendre leurs intérêts yi tax seen peuple fal bu kenn joxoñ France. <laughs> le problème ñun la d'abord li ñuy wax la prise de conscience il va falloir que ñun ñu xam lan mooy suñuy fóot ñu accepté ko ñu accepté ko soo ko joxoñ faute ñeneen ñi. Mhm. mais malheureusement pour nous le mal c'est l'autre toujours l'autre. Bah, ku mu neex mu wax ko xam nga tey aujourd'hui on est dans une liberté boo xam ne ku mu neex am na li mu wax. Mhm. ñun Thiofel on a une vision. la prise de conscience elle commence par la ce qu'on appelle dettu Sénégal ni mu diisee ak dettu Afrique ni mu diisee certes ñi lebale xaalis bi am nañ ci. mais suñu gestion bi tamit waral na ko. Mm-hmm. donc waaw ñu jël suñuy responsable. parce que c'est bien euh, d'être endetté hein, parce que euh, ça veut bi xëy na euh, mi ngi dox. aussi wóolu nañu mm-hmm. mais qu'est-ce qu'on va faire de cet loolu mooy la question bi nga xam ne moo ëpp solo je pense. bien euh, par contre je me permets là ma rectifier la ci benn affaire. Mm-hmm. am det baax na mais baaxul ci réewu Afrique yi parce que réew mi yëguñu ko man j'entends. mooy li ma wax naa la liñ ciy def. moo ëpp solo. xam nga tey bu fekkoon que ne on est endetté et que le pouvoir d'achat a augmenté pour tous les ménages mm-hmm. et que aujourd'hui ñu bëgg a faju ñoo ngi faju et que aujourd'hui ñu bëgg a lekk ñoo ngi lekk et que aujourd'hui ñu bëgg a jàng ñoo ngi jàng ñu war a am liggéey investir nañ xaalis ba ñu am liggéey je dirais que ne endettement boobu baax na mm-hmm. mais dama gis dañuy endetté wu te li ma fi wax ni dara amul c'est ce qui est malheureux oui je suis d'accord avec vous donc pour mm-hmm. mais nañu njëkkee sur la responsabilité africaine d'abord sur la mm-hmm. responsabilité sénégalaise d'abord sur la responsabilité de tous les sénégalais d'abord moi en premier vous en deuxième je me permets mm-hmm. donc loolu loolu dañu yóbbu ci ma question première l'homme qu'il faut wala les hommes qu'il faut à la place qu'il faut souvent on les on a les hommes qu'il faut c'est juste que la vision bi nga xam ne moo war ci réew mi mm-hmm. moo fi amagul cofeel foofu la jógee xam nga baatu cofeel lan moo ko indi dañoo gis ni politique Sénégal di doxe politique gu africaine benn politique boo xam ne sore ak askan bi sore naag aspiration askan bi sore naag bëgg-bëgg askan bi mais aussi sore naag dund askan bi cofeel mu ñëw ci rëkk-rëkk yooyu yëpp ñu wax mu ne lan la mën a indi. Mm-hmm. loo xam ne day boole sénégalais yi mais pas boole leen en tant que sénégalais mais ci jikko yi taxawal réew mi muy le pays de la teranga mm-hmm. ñu xool lan lañ mën a apporter Sénégal. lan moo tax yemuñu juste ci mouvement wala ci association ñu ne il va falloir ñu def lépp ba ay nit ñoo xam ne coono askan bi diis na leen yëg nañu ko xam nañu ko ñoo ngi koy dund accéder ci bureau yi nga xam ne foofu la ñuy signer pour changer dund askan bi mais pour loolu possible aussi est-ce qu'il ne faudrait pas réconcilier euh, le sénégalais ak le sénégalais maanaam waxee loolu mooy euh, boo seetloo depuis un certain temps le climat est très tendu. moo euh, waral animosité voilà je me permets de vous allez-y moo waral vous avez compris donc allez-y. moo waral baatu cofeel cofeel c'est une conclusion d'une longue analyse sociale. Mhm. économique de ce pays. loolu moo tax ñu indi baatu cofeel mais comment y arriver comment y parvenir. comment y parvenir c'est par processus étape la c'est-à-dire que ñun ci suñu programme dañoo am benn colonne boo xam ne ñoo koy tuddee UPA UPA mooy urgence priorité avenir mm-hmm. tey ci réew mi ñu nekk dafa am secteur yu bëri yoo xam ne li ci xew wala li ci war a dindi urgence la mm-hmm. mënta xaar moo tax cofeel bu ñu yàlla dénkoon réew mi février 2024 dans les quarante premiers jours am nañ benn programme boo xam ne décision yi ci jël yëpp ci ubbi lay dugg avancement bi urgence bi d'abord. oui euh, li ngeen ciy demee bëgg naa ko xam. parce que aussi ça dépend ci ban secteur. Euh, Sénégal est-ce que lépp priorité parce que tey jii nii boo seetloo lu xew lu nekk rek ñu ne plan d'urgence après ñu ne ay eh, ajustement <laughs> yu kenn xamul donc ces ces fonds aussi euh, faut savoir les trouver comment. je je permets donc dafa am loo xam ne tey dañ la koy expliquer. Mhm. dañoo ñëw ñu ne cofeel programme am bi tudd or dañ koy teg ci loo xam ne moo ngi tudd UPA nekk urgence priorité avenir urgence bi mooy li mënta xaar loolu mooy organisation bi ñu wax. Mhm. priorité bi moo jëm ci réforme yi avenir bi nag ñu xam ne ku fi toog tey démocratiquement parlant ci ñaari mandat nga war a dem. mooy avenir bi. Mhm. bu ñu jëlee secteur bu mu ci mën a doon suñu programme defuñu ko ay livres dañ ko def ay tomb mhm. boo jëlee secteur bu mel ne santé wala information bi ngay wax wala sécurité wala loo mën a jël ay tomb lañ ko def ñu ne ñun de réew mi ku ñu ko dénk bu nekkee ci wàllu sécurité wala bu fekkee ci wàllu santé ci fukki tomb ak ñaar lañ ko def mesure yooyu bu ñu ko dugalee sénégalais bu nekk bu yeewoo dina ne gis na ne réew mi développé na te yëg na ko. loolu la ñu soxla je pense Sénégal on parle de PIB euh, de croissance mais le sénégalais. Euh, gisu ci boppam en mooy li may faral di wax développement kenn du ko gis. développement kenn du ko dégg duñ ko seetaan à la télé dañ koy dund. Mm-hmm. ki xëy bëgg a faju jaratul muy wut bi avion pour dem faju ji ki xëy war a jàng ki jàng ba pare war a am liggéey ki nga xam ne dafa bëgg a lekk ndékki añ reer mu mën ko. ki nga xam ne bu jëlee péage bi amul problème ki nga xam ne tey jii nii fii muy dund xam na ne am na sécurité kooku noonu day yëg le développement da koy dund. et tout ça c'est possible. dans possible. un délai raisonnable. mais je me permets à votre choix jëlal benn secteur. bon là je vais parler de l'économie parce que c'est très important. ma wax la ci wàllu économie. Mhm. damay jël ce qu'on appelle le secteur informel. je ferai du secteur informel le grenier local maanaam mooy doon biiru askan wi buñ ko organiser ñu. réformer c'est un secteur très fragile c'est un secteur wul ci lu ci lu bëri. c'est un très fragile mais très abondant. je suis xam nga tey en 2011 les on ont montré que ne. le secteur informel moo nekkoon le deuxième employeur de ce pays avec 48 pour cent. Hmm. de 2011 à 2023 la population a mais jeunes dañoo yokk. Hmm. te jeunes ni ñu yokkoo ñoom ñëpp ñu ci ëpp ci secteur informel bi lañ nekk. nu Thiofel dañoo jàpp que ne le secteur informel est le grenier de ce pays. mais comment les accompagner les renforcer parce que le secteur informel. Euh, foofu tellement de familles. mais il suffit d'un rien pour que seen yëpp taxaw. foofu la ñuy ñëw. c'est-à-dire que sénégalais bi nekk ci secteur informel bi dafa nekk ci biir néegam. Mhm. ci biir këram wala ci mbedd mi di taaba taaba. moo defal boppam lépp état defalu ko dara. Mhm. ñun dañuy ñëw organiser loolu ci nan dañuy créer benn service boo xam ne day tudd Sénégal service ou bien suñu Sénégal SS. Mhm. xam nga SS boobu lan mooy doon njëriñam. ça va regrouper tous les mécanismes de financement mais aussi d'accompagnement du secteur informel comment en créant une banque locale. une banque 100% informelle qui va permettre à tous ces jàmbaar de la rue comme je les appelle les soldats de la rue mmh. d'avoir des financements taux zéro mais duñu yem foofu bu ñu leen recenser ci li ñu tuddee le SS dinañ leen accompagner mais par contre aussi li ñuy def te moo gën a important mooy que ne ça sera des embauchés yoo xam ne dañuy am des fiches de paie légales comme tout un chacun comment foofu la coow li nekkee. ma jël est-ce que est-ce que euh, secteur informel ànd na ak embauchement. mais bien sûr foofu laa lay wax lan moo indi entrepreneuriat ak start-up moi je travaille dans les ressources humaines l'organisation du travail xam nañ ci dara. Mhm. baatu start-up entrepreneuriat on sait comment l'organiser comment le définir définir une vision d'une entreprise ba pare teg la politique de l'entreprise loolu mooy suñu liggéey organiser liggéey liggéey dañ koy organiser. Mhm. seen kër gi tey ngeen nekk yow la gis ci kanamu télé bi. mais ñi nekk ci gannaaw ñaata équipe derrière secteur informel bi loolu la ñu war a def bu ñu jëlee benn secteur bu mel ne le tourisme à Mbour tourisme mhm. man mi dëkk sànjara nga xam ne petite côte bi tourisme noonu la fa bëree ñu jóge ci ñuy jaay aar ñi koy defar antiquaire yi buñ ko organiser mhm. nga foog ne mënul nekk débouché comment ma jox la ci yegg ci secteur tourisme bi nii aujourd'hui ñu jël laar au Sénégal c' est un secteur bu ñëpp xam. Mm-hmm. wante gis nañ aar bi tey ñi ko doon dundee ñu bëri ñoo ngi seet beneen mooy cette connaissance boobu moo ngi commencé nax saay nan lañ ko mën a dekkilaatee bant ñàkk na avec ce qu'on appelle l'environnement bant moo ngi commencé jafe. Mm-hmm. mais on n'a pas pris les prépositions les dispositions pour fournir cet artisanat en matière première. il mm-hmm. y a pas que le bois hein. non mais pour l'artisanat foofu laay jël euh, voilà allez dama ci jël benn secteur. yi. débouché bi ci mën a jëlee dama lay jël ma ne la sama nijaay lawbe yi wala sama yaay lawbe yi nekk di euh, yàtt ay bant mm-hmm, nga xam ne c'est une connaissance générationnelle ancestrale waaw moo ngi commencé nax saay lan moo tax parce que ci seen mbaar yi ñu nekk di ko natt amuñu fiche de paie bu ñu demee ci banque bi kenn du leen lebal xaalis amuñu couverture médical bu ñu demee ci hôpital kenn du leen tax bu seen i njaboot feebaree bu seen doom waree jàng et sa ça amuñu imagine toi le secteur li ñuy tuddee le SS suñu Sénégal recruter ñooñu ba nit ñooñu tey ñu mën a am ce appel appelle structure bu légale soit en entrepreneuriat wala en start mën di génne de revenus am compte bancaire ci compte ci banque boobu ñu ne une banque locale bu ñuy créer destiné ak ñoom. Mhm. ñoom ay fiche de paie est-ce que duñu crédible ci dëkk bi. loolu lañu bëgg a def ci secteur bi. mais pour ça aussi euh, un exemple rek ci secteur boobu noonu par exemple euh, souvent l'artisan sénégalais euh, li ñu koy reprocher mooy. liggéeyam xëy na baax na mais effort bi muy fournir euh, du du du naka ma du méngoo ak lim ci am en retour. Mhm. loolu li koy waral xëy na mooy ñàkk formation bi koy permettre mu mën a. Euh, puiser le maximum euh, de ce qu'il fait mhm. loole aussi lu ñu war a xool la parce que à l'étranger am na ñoo xam ne ils peuvent faire mieux et plus ci lu ndaw que que Sénégal ni muy ni muy ni muy ni muy ni muy ni muy demee foofu noonu accompagnement bi xam nga léegi dama ne la le service bi ñuy taxawal. Mhm. dafay am mécanisme de financement et d' accompagnement foofu la accompagnement bi di ñëw. Mhm. l' état va avoir des ingénieurs oui. Mhm. des ingénieurs dans tous les domaines ñoo xam ne comme ay professeur de philo la ñuy doon comme ay professeur de mathématiques la ñuy doon xam secteur agricole secteur pêche artisanat jaaykatu dàll bi kii for lii ba ñi nga xam ne dañuy mindaanu dañuy am ay yoo xam ne dañuy suivre accompagner ñooñu. pour ñu mën a développer seen activité bi ñu nekk. Mm-hmm. cest à la connaissance am nañu ko. organisation de la connaissance c'est ça qui pose problème et Thiofel dans son programme loolu lay def. ci li ñuy mooy loolu la connaissance elle est malheureusement souvent ñu ko yor ñoom gis au premier plan. maa ngi waxtaanee sànq ak sama collègue bi ñu nekk en réunion de rédaction vous avez de très belles idées xam naa ne bëgg nga Sénégal te bëgg nga soppi mais ça ne suffit pas malheureusement euh, tey jii nii pour pouvoir changer concrètement a euh, a euh, a wala une petite coalition seule ne peut arriver à rien du tout. Mhm. comment que vous comptez franchir étape yooyu noonu ba xëy na ëllëg sa voix gën a audible. ni ñu koy commencé mooy que dañoo delluwaat ci askan wi xam nga li nga fi wax nii yëpp c'est ce qu'on appelle la profession réglementée c'est-à-dire politique aujourd'hui dañ ko def yëfu buur. Mhm. réew mi du réewu buur ñun askan wi la ñu yaakaar ñëw ci askan wi wax leen suñu programme. parrainage bi ñuy wax amaguñ ko. Mhm. suñu récépissé sax jotaguñ ko. mais aujourd'hui suñu déclaration de candidature. mooy suñu programme bi nga xam ne moom la ñuy partagé ak suñu askan ba ñu gis ne li ñu nit ñi di wax ak li ñu cofeel di wax fan lañ gis seen bopp c'est-à-dire que la politique autrement mooy suñu deuxième volet mm-hmm. loolu lañ bëgg a indi ci réew mi et la politique autrement c'est l'affaire de tous et de toutes sénégalaise de l'intérieur comme de la diaspora dañ leen a bëgg a wax ne leen ñun suñu parti taxawal nañ ko moo ngi tudd cofeel mm-hmm. askan bi moo ko yëkkati suñu bu njëkk mooy ramener le sénégalais bi nekk ci li nga xam ne moom la ñu mus a xam ci Sénégal loolu bu ñu ko njëkkee def donc sénégale yooyu la ñuy waat suñu bopp li nga fi wax nii que ne tey barrière bi ut na te nga xam ne réglement bu ñu ci def c'est fait pour une certaine classe. Mm-hmm. moom la bëgg ñu daj yi la politique ne doit pas une affaire de classe. Mm-hmm. ñi nga xam ne système bi moo leen produire jox leen ay milliards tey ñu tëj leen ndax ay milliards suba ñu ne dañ leen a gracier wala dañ leen a amnistie ñu dellu si ñu ne ñun askan bi la ñuy jiite il faut un peu de merci beaucoup et pour ça je m'adresse à la classe politique sama nijaay yeeg sama umpaañ yor classe politique. Mhm. pour leur dire que ne la politique ne doit pas être une profession réglementée ça doit être l'affaire de toutes et de tous comme on a défini la politique la gestion de la cité bu leen tëj bunt yi. jërëjëf Chérif bàyyi leen askan bi. mu gérer Sénégal. di la remercier bu baax c'est un plaisir de vous recevoir. ñun ñoo lay remercier comme li ñuy wax yàlla barkeel Sénégal te barkeel sénégalais fépp fu ñu mën a nekk. yàlla ko borom bi def Amine Chérif Diop nekk président fondateur du parti euh, Thiofel ñu koy remercier ci euh, waxtaanam ci disponibilité mais également ci les idées et les propositions yi nga xam ne c'est pour un Sénégal meilleur un Sénégal de tous un Sénégal boo xam ne jàmm moo fi am dig daje jàmm 19h30 ak beneen